ma jël galan tëggalaat na lum ngërëm njukkalaat sa bii defal mu jiite taawa ki caat ma jël galan tëggalaat na lum ngërëm njukkalaat sa bii defal mu jiite taawa ki caat kookaa di doomi Sëriñ Basiiru tey sa tuddaam ka doon bàyyi doon maam lu dëgg mooy jubalaat kooku a di doomi Sëriñ Basiiru tey sëtu daam ka doon bàyyi doon maam lu dëng mooy jubalaat moo taaru doon na taaru biir ca maam delluwaat jël mbubbu taaru bi téem ca baay ba dal di solaat xanaa ki may wax bu doon aw cax kon càqi ngeen bu doonu lépp fii di ngeen ko gaayi nan xalamaat ka seyxi bamba junjoon ca way walil muntaqa wajatu ñëw na ndakaar ngir dëggal delwaat ka seyxi bamba junjoon ca way walil muntaqa

ñëw na ma way wate daal ñu koy xadat te xalam mu jox at ma mu ñëw Ndakaaru ngir yeesalaat jëlal ma way wate daal di koy adat te xalam mu joola an mu ndakaaru ngir yeesalaat jumaa ja masaalikul jinaani ku dem te jàpp julli fa am nga yool am xasanaat jumaa ja masaalikul jinaani ku dem te jàpp fa julli fa am nga yool te am xasanaat gannaaw masaalik itam la daldi woote tabax ab jàngu ngir université Serigne bi jugaat lil Mustafa li banaal xuddus madrasatan loola yi la Cheikh Muntaqa jëmmal ni ngeen takkuwaat lil Mustafa li banaal xuddus madrasatan loolaay la Seex Muntaxa jëmmal ni ngeen takkuwaat lil mustawa li banal xudus madrasatan loolaay la Seex Muntaxa jëmmal ni ngeen takkuwaat mooy taalu xam-xam ba Bamba taal te mus la fay boobee ba tey ku fi jaar saw say nga jël jëfal mooy taalu xam-xam ba Bamba taal te kat mos la ba tey ku fi jaar saw nga jël jafalaat sayam wa Seex Muntaxa daaray amul lu ni xambal na taalu bi yëpp seeni taal taaliwaat jël kàddu yàlla gi wax ni nan ko yëkkati kat bañ mu laala suuf ne ñëpp yëkkatiwaat baytu zakaata ngi nii ko aajo azaka bum tiit sëriñ bi amal na kër gu ñeel azakaat yaakaar way ñàkk yaa ngi dimbalaa ko na ngi ku xiif ba yegg si moom mu daal di jël yafalaat walaayi moom fa nu sédde mag ña cëri yanu am falan ko sédde cëram mu ñëw di sédde la waat seexul xadiima di maam ja sëriñ basiiru di baay ba moo waral li mu si di dafay rogalaat pastéef bu doon géej la moo ko fey bu doon dexitam seex muntaxaay ki ko xuus pa jàll dal di weyaat ak dogutam bu ni woon am ndox la mooy ki ko naan bu doon lu nuy wutitam du mooy ki koy wuti waat man xaadimul muslimiina maa la way la defal ko koppi ku di jullit di déglu sabaat Cheikh Muntaxa na yàlla buur bi guddal saw fan yi yokku la wér banaal yi yegg nga naal naal naali waat na yàlla buur bi guddal sa fan yi yokku la ba naal yi yegg nga naal yeneeni naal naali waat ci barke Seexil Xadiimi jaamu yàlla baraw ñi jiitu woon ak ñi ñëw gannaaw bi ak ñi ñëwaat te yàlla julli te sëlmalaat te sang ba gëm luy ku ñuul ku weex ka yàlla may darajaat te yàlla julli te sëlmalaat te sang ba gëm lii nit ku ñuul ak weex ka yàlla may darajaat subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil alamin cheikh mouhamadul muntaqa yenn fi yàgg téwér mboolem taalibe yi aoudu billahi min asheytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim ma jël galanta galaat ne lum ngërëm jukkalaat sët bi borom bi jiite taawa jël galanta galaat bi borom bi kookaa di doomi Basiiru tey setu ka doon nu bàyyi doon nu maam lu dëgg mooy jubalaat kooku di doomi sëriñ Basiiru tey sëtu daam ka doon nu bàyyi doon nu maam mu dëng mooy jubalaat moo taaru doon na taaru biir ca maam delluwaat jël mbubbu taaru bi téem ca baay ba dal di xanaa may wax bu doon aw cax la kon càqi ngeen bu doonu lépp fi di ko gaayi nan xalamat ka Seyxi Bamba junjoon ca way walil muntaqa wajaatu ñëw na Ndakaar ngir dëggal delluwaat ka Seyxi Bamba junjoon ca way walil muntaqa wajaatu ñëw na Ndakaaru ngir dëggal ka Seyxi Bamba ju ca way walil Muntaqa wajaatu ñëw ka Seyxi Bamba ju ca way walil Muntaqa wajaatu ñëw na ndakaaru ngir daggal delluwaat ka say xibaam ba junjoon ca way walil muntaqa wajaatu ñëw na ndakaaru ngir daggal delluwaat jëlal ma way wata di koy xadat te xalam mu jox ma mu ñëw ndakaaru ngir yee salaat jëlal ma way wata di koy xadat te xanam mu joola annu ndakaaru ngir yeesalaat jumaa ja moo di Masaalikul Jinaani ku dem te jàpp julli fa am nga yool te am xasanaat jumaa ja moo di Masaalikul Jinaani ku dem te jàpp fa julli fa am nga yool te am xasanaat gannaaw masaalik itam la daldi woote tabax ab jàngu ngir université sëriñ bi jugaat lil Mustafa li banaal xudduus madrasatan la Seex Muntaqa jëmmal ñi ngeen takkuwaat lil Mustafa li banaal xudduus madrasatan loolaay la Seex Muntaxa jëmmal ni ngeen takkuwaat lil mustawa li banal xudus madrasatan loolaay la Seex Muntaxa jëmmal ni ngeen takkuwaat mooy taalu xam-xam ba Bamba taal te mus la fay ba tey fi jaar saw say nga mooy taalu xam-xam ba Bamba taal te la fay boobee ba tey ku fi jaar saw say nga jël jafalat sayam wa Seex Muntaxa daaray amul lu ni mel xambal na taalu bi yëpp seeni taal jël kàddu yàlla gi wax ni nan ko yëkkati kat bañ mu laalati suuf ne ñëpp yëkkatiwaat baytu zakaata ngi nii ko aajo azaka bum tiit sëriñ bi amal na kër gu ñeel azakaat yaakaar way ñàkk yaa ngi dimbala ko na ngi ku xiif ba yegsi ci moom mu daldi jël yafalaat walaayi moom fa nu sedde mag ña cëri yanu am falan ko sedde cëram mu ñëw di sedde lawaat seexul xadiima di maam ja sëriñ basiiru di baay ba moo waral ni mu si di dafay rogalaat pastéef bu doon géej la moo ko fey bu doon dexitam seex muntaxaay ki ko xuus pa dal di weyaat ak dogu tam bu am ndox la mooy ki ko naan bu doon lu nuy wuti tam du mooy ki waat man xaadimul muslimiina maa la way la defal ko koppi ku di jullit di déglu sabaat Cheikh Muntaxa na yàlla buur bi guddal saw la wér banaali yegg nga naal yaneeni naal naali waat na yàlla buur bi sa fan yu la wér banaali yegg nga naal yaneeni naal naali waat ci barke Seexil Xadiimi jaamu yàlla baraw ñi jiitu woon ak ñi ñëw gannaaw bi ak ñi ñëwaat te yàlla julli te sëlmalaat te sang ba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 sët bi borom bi dafal mu jiite taawa ki caat kookaa di doomi Sëriñ Basiiru tey sëtu daam ka doon nu maam lu dëgg mooy jubalaat kookaa di doomi Sëriñ Basiiru tey sëtu daam ka doon nu maam lu dëng mooy jubalaat moo taaru donnu na taaru biir ca maam delluwaat jël mbubbu bi téem ca baay ba dal di solaat xanaa ki may wax bu doon aw cax kon caqi ngeen bu doonu lépp ngeen ko gaayi nan xalamaat ka seyxi njoon ca way walil muntaqa wajaatu ñëw na ndakaaru ngir dëggal delluwaat ka Seexi Bàmba junjoon ca way walil Muntaqa ngir dëggal delluwaat ka Seexi Bàmba junjoon ca way walil Muntaqa wajatu ñëw na Ndakaaru wajaatu ñëw na Ndakaaru ngir dëggal jëlal ma way wata daal di koy xadat te xalam mu jox la mu mu ndakaaru ngir yee salaat jëlal ma way wata di koy xadat te xalam mu jox la mu mu ndakaaru ngir yee salaat jumaa jamoo di Masaalikul Jinaani ku dem te jàpp julli fa am nga yool am xasanaat jumaa ja moo di masaalikul jinaani dem te jàpp fa julli fa am nga yool te am gannaaw masaalik la daldi woote tabax ab jàngu ngir université sëriñ bi jógaat lil Mustafa li banaal madrasatan